juddug eh, ismail alayhi kon day mel ni eh, xisab sayidna ibrahim kenn mënu koo tudd ba mu jeex te tuddaale woo ñaari doomam yi mooy ismail ak ishaq moo tax eh, ñetti ñooñu lañuy boole ci benn xissa bi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 ni yonente bi waskur fi kitaabi ismaila innahu kaana saadiqal wa'di wa kaana rasulan nabiyya wooteb ismail boroom xam-xam yi dañuy wax ni weesu giiri arab yam nekkaloon yam doon dund ci seen biir la doon woo ci diina jëm nekk waaye liy tàmbali bi xisa ismail mooy ibrahim dafa dem ba xeemem doom lool ba ñaan ko sax suñ borom ñaan suñ borom doom ju baax ni ko rabbi habli mina saalihiin te booba Saara eh, mag la bañ ñàkk ci moom yaakaar ne war naa mën am doom mu mel ni dafa yëg yëg yëgu Ibrahim boobu moom itam muy ñàkkuk doom ji metti ko metti ci moom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 mu ni dafa wax ni ñoom ñëpp ci quraishin waa la lañuy bokk loolu mi ngi ci sahih bukhari ak muslim dëppoo ji ak lay nekk ci safru takwin ci bible ba wax nañ ni bi ismail di juddu booba ibrahim mi nga am juróom ñett fukki at ak juróom benn ismail jëkk naa juddoo isxaq mage na isxaq fukki at ak ñett ismail moom la alxuraan melal ci ak lewet fa basharnaahu bi gulaamin xalim waaye ginnaaw bu yàlla wërsëgalee ibrahima ismail ci hajara mu mel ni hajar dafa daal di tàmbali yëg boppam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 mu wax ni ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni nit ñi jigen ñi jëk eh, jël jigen ji jëk jël ak laxasaay tak ko ci gënaaw muy ko ci muy ko ci ay tankam ba tank yi du feñ moy Hajar mi yaay Ismaayil dafa jëloon lu mel ni laxasaay tak ko ci ndigg li buy dox muy bubu ci ginnaawam di far tànk yi ngir muy ragal fiiraa ngiy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 dafa notoon bëgg-bëggam mu wammatu ñeel boroomam daldi wéy muy wéy nag ma ngay ñaan ñaan yi alxuraan di nettali di wax ni rabbana inni askantu min dhurriyati bi waadin ghayri dhi zar'in inda baytika almuharram rabbana li yuqimu salaa faj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim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 nga xam ni fi la fas fi leen fas yéene tabax sa néeg bi bam ne ànd baytikal muharram daf mel ne wax yu suñu borom la ndax néeg bi amagutoon waaye fiñ fas yéene tabax néeg bi muharram ji it muy tekki mooy néeg bi nga xam ne danga araamal ci nit ñi ñu di ko dal mbaa ñu di ko ñu sàkk ci moom dara lu ñaaw mun yàlla dëkkaluma leen ci xur yi de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 ñu daal di wàcc wéetal képp lu bëgg moo tax sart boobu mu leen sart leen seen yoon di nekk ci ndox mi daa mujj wàcc sart boobu yi ngir eh, ñor gu ko wéttal gën a ñor ñu wàcc fa nekk fa moom ba ñu wàccee dañu daal di yeble eh, ca seeni waa kër ñu woo mbooloo ndax booba ndox dafa jafe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 ñu dencal ko fa soxna su bokku ci ñom walanteru ibrahim ci domam Joji mu ismail kon la ibrahim bayen njabot gi fofi ci xur woo ci makka fatte wu len sagane wu len nit ndax daana def leg leg mu ñew fa set ci len li sunu borom di wax bamu ba mag nag ba mën jëf li bayam di jëf war mana ba and ak bayam di liggéey war a ber liggéey boppam non la Ibrahima genté ci biir nelaw ñu digal ku ni ko nga rendé sa dom ji na ci hadith yu wér ñu jël ci Ibnu Abbas mu jël ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni géntub yonente yi ak wax bi la motax bi ko genté jappé ko genté waye dafa xamni li ak wax bi la ko jogé ci sun borom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 gént mu ni ko rendil ma doom ji mu doon lu yéeme waaye nag lépp rek sunu maam Ibrahim daal di gaawtu ci fas yéene def ndigalu suñu borom loolu yi daal koy wax doom ji ngir loolu gën a mën a dalal xelam ak gëna mëna wayef ci moom ci mu di ko not rek di jek jek di ko rende loolu alxuraan di nettali ci aaya yii wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdini rabbi habli min assaalihiin fa basharnaahu bi ghulamin halim falamma balagha as-sa'ya qala ya bunay inni ara fi al-manami anni azbahuk fanzur ma da tara قال يا أبت افعل عمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم كنت suñu borom mi ngi nettali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 sun borom digal ko mu rendi domam joju di Ismaayil ta muy kenn ku ko yàlla may amon ci yaakaar lol amon ci ak lol lool waaye mbir moomu Ibrahima daal koy garal dom joji ngir natt moom tam ak ngamam fum toll ak ngir bëgg dalal xelam Ismail wuyu ko wuyu bu di ni ko yow sama baye. defal li ñu la digal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 safru takwin mom lam wax may ibrahim yalla daf ko wax ni ko jëlal sa dom ji muy nga sop lol ta moy ishaq dem ak moriya waaye ibnu kasir mom dafa loli, loli dafa wax ni batuk ishaq bobu ñu ci dugal Yahudi ye ko ci dugal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 kenn ku ne wane mbégte sa ak sa morom ginnaaw buñ jàmmante ba noppi nag la ko Ibrahim leeral li nga xam ni mooy it ji ko tax a jóg mooy suñ borom daf ko digal mu tabax ab néeg buñ koy jaamoo ci birab bii daal koy joxañ birab bi boobu mi ngi nekk ab jànj euh, boo xam ni moo gën a euh, kawe euh, suuf si kóor si ab janji daal la bu leen jege la ko joxañ ni ko fii la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 jamono bi jeeb bi ñu tabax nak dañuy def sa bu ñu tabax rek di ñaan ñaan suñu borom rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim yalla yalla na nga nangul ndax yaay kii deg ak ñaan yaay ki xam lepp lay ñaané ba aksi ci wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim ibrahim bim deme ba tabax bi yëkëtiku ba mënut a yëkëti moli mu am aw daj wum taxaw daj wum taxawoon moom la ñu ibrahim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 nit bu mucc boo xam ne bu am kóolute la képp ku ragal boo fa duggee mucc ku dugg ci haram bi ku ne benn lor du la fekk muy mbir moo xam ni arab yi diir bu yàgg ba jëkk yonte bi di ñëw ba jamono bi ñu toll loolu luñ gëmoon naka jekk ni ku mas dugg ci kaaba ci haram bi rek euh, kenn du la fa fekk dara la naqari maqaamu ibrahim bi nga xam ne nag sunu borom daf koo digal mu def ko ab jullikaay am ñu wax ni mooy al hijr moy eh, lu ñu wax hijr Ismaayil ci wetu Kaaba nga xamni moy doj woowu nga xamni eh, am wax ni moy doj wi ta taxawon ngir di tabax Kaaba gi am ñu wax ni déedéet eh, maqaamu ibrahim moy haram bepp haram bepp li wër Kaaba gi lepp ci la bok yalla mi ngi junjun denkan bi mu denk ibrahim ak Ismaayil ci laabal Kaaba gi ci tak tak tak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 ñu mën a am ñaari xéewal yu mat sëkk muy xéewalu àdduna ak xéewalu alaaxira yàlla wuyu na ñaanu suñu maam Ibrahima googu yi ci yónni ki mujj ci yonante yi ci ñoom te mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonante bi daan wax ni man mii maay ñaanu Ibrahima di bégleek Isa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 xejru xajar bi dinaa ko dugal ci biir xejru ismail yi danaa ko dugalaale ndax loolu moo doon ponk yi confinement Ibrahima tabax la ibnu Subayri ci ay jamonoom da ko defar comme noonu ni ko yonte bi junjee ci hadis bi comme ni ko soxna Aïcha nettalee waaye bi ko xajaaj reyee ci atum juróom-ñaar fukk ñett ci gàddaay gi la binda Abdul Malik ibnu Marwan ma doon xalifa booba ñu jàpp ni